ndax daa may mbir yu xew mbir yoo xam ne ne jar na jël kàddu man ku ma xam Ahmed Youssouf Bengelloune xam ne sama wax bariwut très rarement lay dem ci presse bi lu xana dañu am événement tay nak dama len wol won ngir ñaari mbir yo xam na dafa xew wala sax dafa xewati muy des actes de violence lundi à 2 h du matin suñ ben allié daf ma wo jotuma mu un message wane ne ñoo vandaliser suñu ay pancarte suñu ay affiche yo xamne dañ ko def ci Kaolack so duggé Kaolack affiche serigne boobu nga fi gis ak man Ahmed Youssouf Bengelloune ci yoon yu mag yëpp ñun ñu choisir def cette forme de communication responsable parce que ñun dañu woote ci politique bu bess jëf yu bess luñ doon gis moy ay nit di bind ci mur yi muy nek acte yo xamne ñun rafet luñu ko ñune ñun duñ fekk ku ñu muram ba pare ñu koy ñuy bind ci kawam lu ñuy def mooy suñ buggee communiquer nit ñi bugg suñu visibilité dañuy def ay affiche mu nekk communication bu responsable tamit bu ànd ak civisme ba tax ñu jël alal bu takku def ko ci affiche yi ñu xamal ñu ne am na suñu ay naataango

mu nekk ndaw bu nit ñi bàyyi xel démb dañ ko agressé fekk ko ci buntu kër sëriñam jël séquestre euh, enlevé ko séquestré ko dóor ko filmer ko publier ko muy des actes d'humiliation yu yoo xam ne lu ñuy condamné la gaañ ko ci bopp particulièrement ci nopp ak ci bët ak ci loxo ñun nag acte de violence yi ñuy def mu xam ne ne c'est la mun naa ne yii mooy ak énième acte yi nga xam ne ne ñoo ngi koy def jëmale ko ci coalition bi loolu la ñuy ñëw di condamner fii nii di profiter ci occasion bi di woo les autorités publiques yi nga xam ne ne ñoom ñoo yor sécurité nit ñi ak tamit jàmm askan bi ci seen loxo lañ ko teg maanaam ordre public bi daal ci gàttal ñoom ñoo ko war a faire régner ñoo ngi leen di woo ne acte yu mel nii ñu xeex ko fexe ba lu mel ne képp ku ko defete daan gu ci war ñu mu dal ci kawam ndax nag ci dëkk loi lañ nekk suñ seetaanee dinañ dem ba fayantoo dina fi am te loolu defe naa du jur jàmm ñun nag jàmm lañuy woote moo tax ma ne ñoom ñi nga xam ne ne ñoom lañ dénk ordre public Nous ferons ba nous